suñu natango yi di waa Dakar matin di xamle ni nag moom maître Ousseynou Fall daal di nay àddu rekk jëm ci nag mbiru yoon daal di wax jëm ci dossier yi nga xam ni moo ñeel nag mbiru Ousmane Sonko mu ni dossier yooyu kon nekk na lu gën a lu gën a metti waaye itam li gën a rek riche jëm ci wàllu nag judiciaire maanaam. yi nga xam ni moom la ñu tegoon ci kawam te mu bari loolu mu mel ni sax nag moom dossier yooyu nag euh, dem na rek dem ba daal di rek yaatu ndax lu bari gis nañ ko ci lu bari am nañ ko ci wàllu carrière ñoom ñi nga xam ne ay avocat lañu ak procédure yi nga xam ni jàll nañu ko mu nekkoon lu ci loo xam ni lu doy waar la tax na kon muy encourager ñi nga xam ni ñoom ñu nekk ci collectif bi di rek daal di défendre Ousmane Sonko ci coordination magistrale bu avocat avocat bi di Bamba Cissé moom mi nga xam ni moo ci gën a nekk ndaw waaye itam xarañ na ci loolu ginnaaw li nga xam ni def nañ ko seen kéemtalaay kàttan ngir rek daal xeex li nga xam ni moom mooy wàllu injustice bi ñu bëggoon teg seen client bi.